kii quoi. Mm-hmm. mais chaque fois rek xam nga olof day wax mu ne ku wax rek feeñ. ku wax feeñ cest à moom à chaque fois rek lu muy gën di communiquer rek di gën a ñuy gën a xam en réalité di gën a dëggal ñun ñuy wax ni Ousmane Sonko au fait en noonu la mel au moom nekkul nit koo xamante ni c'est-à-dire cool yi am Sénégal yi problème yi gars yi di def ak ñii di saaga ak yi ne ci suuf ak yëpp maanaam ni muy abuser ci pouvoir moo grave maa ngi ko wax depuis pouvoir. Ousmane Sonko mooy président mooy chef suprême des forces armées mooy premier ministre mooy ministre de l' intérieur mooy ministre des affaires étrangères mooy mooy lépp mooy procureur mooy la gendarmerie li Youssou Ndour waxoon keroog maa li Youssou Ndour waxoon woyaloon Ablaye Wade moo ndaje Ousmane Sonko ndaje li naan fu nga nekk fa lu ne nga dugg ca Ousmane Sonko mooy moo ndaje fu ne nga nekk fa lu ne nga dugg ca del sóoraale pour réew lañ ko jox réew te xoola te réew bi ñu leen jox ñoom mm-hmm. daaxuñu ñu fay jàng gaa yi lañ ko jox ëppuñ leen xam-xam ëppuñ leen fit gënuñ leen bëgg Sénégal il faut ñu am lu ñu desal nit da am loo desal ne serait-ce que pour honorer sax yow république bi ak li nga xam ne jox nañ la ko démocratiquement sax yow war na tax am na propos xam waroo ko waroo ko waroo ko wax mais comme moom moom mooy koo xamante nii lu mu def noonu la ak lu mu wax noonu la malheureusement ay mbokkam dimbali wuñ ko. xam nga critique dafa baax ci nit surtout boo yee yenn pouvoir yi te tamit gisoo bu ko gars yi di critiquer sax nii nii yu dañuy gis déjà ñoom dañuy mer dañuy énervé parce que kuñ tàmm wax yaay góor yaay góor bis bu ñëwee xaw a jigéen rek tey nga dee da ngay am lu la naqari mais en réalité xam nga ni Ousmane Sonko amul fenn fu mu teg propos yi mu wax Cheikh Yérim Seck barki démb ñëpp dégg nañ ko ay dañ la tëj ba nga nëb ci kaso bi Ousmane Sonko léegi moom mooy tëjaate mu ñëw encore ne far Ngom lan la wax Farba Ngom lu mu ko wax dootul Ousmane Sonko est-ce que cité directement. le ouais, mais non euh, mais si jamono jooju Karim ñi ngi doon waxtaan sur la sécurité nationale. quand même écoute quand on parle de la sécurité nationale ma la wax dégg nga sécurité nationale. gis nga bro i faut arrêter se voiler la face ñun xam nañ propos bu nekk fan la jógee fan la dal lu bu nekk fan la jógee on n'a pas besoin de nekk fii di xam nga di nekk ci détails yi de façon ak ku mu mën a waxal léegi supposons léegi yow génnal génnal Cheikh Yérim Seck ci thèse par exemple mais en tout nit lay waxal. dégg ngeen ko fi def politique di wax nangam ak nangam ak su ko defaatee ñu tëj ko ci kaso bi moom mooy tëj kan ana justice bi fekkee justice am na li ma li ma mayoon fit moom ma taxoon ne justice amul Sénégal léegi encore mu ngi ci Farba Ngom Farba Ngom animosité boobu yooyu mu nekkee noonu mais kan moo ko war a gérer Ousmane Sonko wala wala justice sénégalaise est-ce que tu foofu lay dellu si waat rek léegi nag man dama ni ce que am na ay nit yoo xam ni ñi ngi entouré ñi ngi nekk autour de de de de de Pastef wala mën a wax Ousmane Sonko ne ko ku baax kaay arrête am na propos yoo xam waroo ko yëkkati balaa muy waxati mu diisoo gaayam yi ñu ne ko bàyyi xoolal li ngay wax mais gars ñun par exemple man par exemple su ma waxee benn wax dañuy ñëw nan non Karim mu wax mais man toj-toj yi Ousmane Sonko yi mu wax man waxaguma ko fi <laughs> te moom kilifteef bi am ci réew man aw moom aw ma ko responsabilité yi am ci réew man aw ma ko te chaque jour mu wax toj-toj boo xamante ni après te pourtant gars yi la mi daal réew la boo xamante ni yow koo àndal daal nu mu ko defee noonu la. nu mu waxee noonu la c'est malheureux Ousmane Sonko ba ba si benn localité. Mhm. ñu bëri wax ne que c'est un politique yow nan ngay jàngatee kàddu yi nga xamante ne moom la yëkkati démb. yi mu wax si yi mu wax Farba Ngom. waaw. en réalité c'est en fait. man dama ni. man mhm. xam nga la politique c'est la politique. waaw mais dafa am dafa yoo xamante ni il faut l'éviter parce que il faut pas ngay abuser ci pouvoir bi ay dootoo. bokkati ci élection mais fa loolu mooy lan ngeen mais loolu mooy lan Farba moom waxaatuma la ko ba fam ñoo xam ni sax te li gën a grave affaire bi mooy moom ay nit yu tekkiwul dara yoo xamante ni moom yooyu jaru sax mu koy wax ñooñu ñoom ñoom ñooñu am na yoo xam jaru sax mu koy wax loolu nit ñi xam nañ ko mais moom da si en fait dafa mel ni yàlla ko nattu pour muy wax di wane boppam quoi di weer boppam mais Farba Ngom existé tul sax nag en réalité il n'existe plus mënutu fi nekk dara mënutu fi am ak li mu ni mu mel quoi c'est esprit dictature bi. Mhm. pensée unique bi li ma la wax chaque fois ne leen li ngeen di gis ci réseaux sociaux yëpp booy di ko def moom la c'est lui derrière. ñu bëri di wax nekk Farba Ngom tamit euh, àndoon ak ancien régime bi. Mhm. naam tey jii am-am bi nga xamante ne moom moo nekk à son compte. Mhm. est-ce que suñ ko tegee si yoon mu am traçabilité. duñ ko xaw a yoon du dal si kawam. parce que ñu ngi waaw loolu on est tout à fait d'accord dañ ci d'accord. Farba Ngom ni mu amee alal tegu ko fenn te nit ñi dofuñu xam nañu lii nii bàyyi mooy loolu kon werante wuñ ko de. Mhm. mais kan moo ko war a premier ministre. moo war a lijjanti loolu moom mooy moom mooy cour des comptes wala moom mooy def traque de biement ak kii c'est-à-dire foofu laa lay waxee moom laa lay mel soo mooy Mor Ndaje mi ngi fu ne mooy président du Sénégal mooy premier ministre mooy ministre de l'intérieur mooy ministre de la justice mooy procureur ah. mooy lépp mooy mais en réalité réew mi am na ay kilifa yu mu jël sax am na ñoo xam ne au moins am na ñoo xam ne am nañ mais xanaa au moins même burul politique sax même fekkee ni bi kese la kese même burul sax côté république parti bi kese kese xanaa am na yeneen leader sax yoo xam peut être war nañ koo xam amortir na ko gaayen faal defal nii wala lii sax xëy na bàyyi ñun ñu wax wala nii mais loolu parti politique mais tout le Sénégal tourne autour d'une seule personne moom mu mu joteel yaa ko tooñ moom lu mu wax noonu la ku ko wax dara yaa waxloo da ngay ñaan da nga soxor lu mu def noonu la nu mu ko defee noonu la ku mu attaqué yow yaa baaxul mais yaa ku ku ku ko bàyyi dem feneen yow warkat nga ku ñëw ci moom war ñee ñëw si moom yow yaa baax ku ànd ak moom yaa baax lu mu wax mooy dëgg mais mais yi tamit nit ñi dofuñu loolu nag moo tax crédibilité bi ñu amoon ñoom amatuñ ko loolu moo tax muy demee nii da ngay gis ne après day gën a day gën a empiré wu rek des fois da nga gis dara mu mel luy tàkk fekk day fay fekk yàlla bu defar da mel ni ko yàq mais Sénégalais yi dofuñu dañuy conscient nit sa esprit bi ngay yor mentalité bi ngay yor nit ñi dofuñu ñii dafa am ay principe yu ñu doon topp. bayre mbëru Modou Lo yooyu noonu loolu yàggul loolu benn pënd ak furit la nii rek après day seey. lu tax ngay euh, utiliser le mot bayre si mooy maanaam maanaam li mu wax waxuma bayre maanaam waxuma au fait pas maanaam ku nit ñëpp maanaam ku ndiiraan gi topp ndiiraan coow topp xam nga coow. coow li nii ñëpp foo dem xale yi topp taalibe yeeg jaakatu kafe tubaay ak gerte yi meer yeeg ñëpp di. yuuxu kon coow topp mais xoolal rek yow li xam nga ko. mais loolu am li muy représenté sur le xam nga représentation li nga xamante ne moom moo nekk ci ginnaaw mu certifié wu sur les élections mhm. da nga jàpp ne que ba tey jii nii am na des points d' yoo xamante ne dañ koy teg sur la popularité du président. non man man popularité bi tegu ma si benn benn baat. tegu ma si benn benn point d' interrogation. popularité bi loolu dañ ko waxoon nangul loolu amul problème loolu y' a pas de souci loolu lan la dama ne la xoolal góor jigéen ñi sax am na ñu leen di topp vraiment la séeréer góor jigéen ñi am na ñu leen topp. loolu pour xam problème bi lan la problème bi mooy en réalité boo nekkee leader yow leaderu lan nga ak lan ngay servir sa peuple ak lan moo tax ñu topp la ak yow fan nga taxaw ak ban respect nga am ci sa peuple bi nga xam ñoo la foofu laa lay wax dama la yi dofuñu ma ne la mooy nit ñi su ma nee la bayre mooy coowal coowal coowal topp bi coowal bayre modloo bi foo dem nit ñi la ak yooyu yooyu dafa war war laa tere conscient xam yow la fal la teg fi nga nekk nga mën a respecter mën a def discernement par rapport ak peuple bi nga xam ñi ndiiraan bi ñi comprendre ak ñi comprendre nga am ñoo cëral xam ni réew mi ñu la dàq jàng ñoo fi nekk ñu la ëpp dàq xeex ñu la gën a osé ñoo fi nekk ba pare am yar def tekk ànd ak dal man loolu laay wax comprendre nga fi man foofu laay waxee frère mais waxuma man man nekk ma fi di jëm a dénigrer wala ma en fait ma fi di jëm a dindi popularité wala ma koy jëm non non non ku nekk ak loolu yàlla may yàlla may na ko loolu gën tuuti très bien euh, ñu gis na tamit de manière répétitive ñi ngi attaqué ay convoi am ak cortège yi nga xamante ne euh, naam moom mi ngi koy diriger. Mm-hmm. lool tamit euh, day tax ñu dugg ci li nga xamante ne moom mooy violence électorale bi. Mm-hmm. Mm-hmm. si wàllu moom la moom ñaaw. moom laa xam ne politiciens yi Papa Sma ko xam ne mais ñoom rek ñooy xeex ko parce que c'est pas la première fois tamit ñuy attaquer li nga xamante moom mooy cortège ak ku mën a nekk. waaw ak ku mën a nekk ak côté boo mën a nekk. soo attaqué cortège yu jàmbur. soo attaqué cortège ah violence gis nga violation bi ñun sérieusement ñun ñun dañu sonn ci violation bi quoi te dafa ñaaw faal violence bi dañu war a arrêté comprendre nga parce que en réalité politiciens yi lan mooy seen problème parce que Sénégal yow déggoo ñu ne la Youssou Ndour ak Baaba Maal ñooy xeex. déggoo ñu la Modou Lo ak Balla Gaye ñooy xeex. déggoo ñu la Serigne Diw ak Serigne Diw ñooy xeex déggoo ñu ne nawetaan yi sax xeexatuñu. Mm-hmm. politiciens yi ñoo fi nekk à chaque fois. di indi ay problème et ça tourne autour de di utiliser doomu jàmbur ñu nekk di rente ci mbedd bi te ñoom dañu nekk ci sécurité bu wóor la preuve gis nga GIGN nga gis nga ne ñu ànd ñoom c'est la gendarmerie nationale du Sénégal ñoom ñooy ànd ñoom après léegi ñoom c'est les hommes de tenue ñoom ñoom ñooy au ñooy nekk kii bi quoi ñooy nekk ñooy euh, bi quoi xam di dal ci kaw xale yi ñoom politique yi ils sont à l'aise ils sont en sécurité loolu loolu dañ ko a xoolaat war loolu laa moo tax ma ni dañoo war a politiciens ñoo war a xam ne moomuñu Sénégal réew mi ñu bari ñu ngi fi nekk ay gor nekk ay nit yu diñ ne pat toog noppi di xool di leen seetaan nañ leen bàyyi xel ñoom ko se nekkuñ ci réew mi man loolu mooy sama discours au fait. ñu gis tamit. violence moom euh, damaa dafa ki nga xamante ne moom mooy euh, Abdoul Mbow. si mm-hmm. wàllu boobu mu yëkkati ay kàddu. li mu si wax nag mooy il faut que Ousmane Sonko mu xam ne que ce n'est pas lui qui détient la justice et il devient urgent d'arrêter cet homme avant que ses propos irresponsables ne carbonisent li nga xamante ne moom mooy le Sénégal incitant ainsi l'électorat sénégalais à stopper cet homme. mais nekk kàddu nga xamante ne à tout prix loolu man sax c'est pas les autorités autorités yi sax peut-être mën na bañ a àgg si ñoom mais am na ay góor. am na ay góor ay gentleman quoi yu mën a woo Ousmane Sonko mais bàyyi si yi ngay wax mais gars lan mooy seen problème mënuñu ko woon ne ko bàyyi si yi ngay dugg li nga wax fi baaxul li nga wax fee baaxul lii waroo ko waxee nii lii waxee ko nii lan mooy problème bi quest wax waxu dëgg mais parce que bii parce que xanaa amul gentleman man dama man dama jaaxle quoi parce que ñoom ñëpp aussi ñoom am complexe su gànnaam bi wala ñun lu tax Sénégal bu fi nit faloo rek ñëpp yaakaar la bu fi nit faloo ñëpp yaakaar la ba jàpp ne ñëpp ay morceaux verrikaay lañ ba nga xam ni booy def doo tàggu kenn doo respecté kenn Ousmane Sonko da nga koy xool muy wax nga xam ni ki day tiit di wax nu mu ko sentir la koy waxee te fu mu dem environnement bi lu mu raaj li a dégg la kenn a ko faal kaay lii nga wax wax fii baaxul lii waxee ko ne lii kat waxee ko ne xanaa man sagaru Karim bii sax man gars yi may woo di ma teg ci axe mais ku toll ni premier ministre du Sénégal gain nga am aura bu toll nii peuple bi yëpp comme ni ñu koy waxee topp la mais xanaa au moins Pastef am na góor yàlla am na gentleman am na koo xam ne yàlla la yaakaar quoi dafa topp ci bi ndax dëgg la quoi mën a woo Ousmane Sonko waxtaan ak moom ne ko gain ni ngay waxee nii kat monsieur euh, premier ministre le président parti bi Sonko fii moom baaxul quoi lii du yow yaa ko war a wax wala boobu ko woo téléphone ba ko woo ne ko mais ñun justice war a gérer ay kuy kuy bokk ku a koo xam ni wala Cour des comptes ñoo war ku sàcc àllu wala justice moo war a topp loolu wala yooyu yaa ko war yow da nga nekk sax yow da nga nekk di campagne da nga nekk ci campagne électorale da nekk ci élection am na yoo xam ne yow li nga war a wax mooy waxal ndax boo amee majorité di nga criminaliser homosexualité foofu lañ la gars yi débat boobu lañ bëgg dañoo bëgg foo tolloon ci ya nga waxoon yow la nga waxoon ca élection avant élection présidentielle ne boo amee majorité assemblée nationale di nga criminaliser homosexualité ñëwal foofu wax ñu si loolu ah, foo toll ci prostitution yi nga xamante ni jigéen ñi jaay seen bopp foo ci toll lan nga ci xalaat foo toll ci alxuraan école yi ak catéchisme foo toll ci doomi daara yi nga dajale woon ne da ngeen doomi daara yi ñoo ànd ñoo bokk ci parti Pastef leen di jox lan lay nekk loo xam ne yow lan foo toll ci gouvernement boo xam yoo toll ci nangam fu ma y' a plein de débats yoo xam war nañ si mën a wax lu dul ay Farba Ngom quoi Farba Ngom il est déjà mort il déjà mort moom na bàyyi ñi nga xam ne ils existent plus gars dañ leen folli fal ko moom moom war a indi programme wax nit ñi loo xamante ni mooy tax Sénégal mën a avancer. ci majorité bi mu bëgg am assemblée nationale su ko amee ne man fii laa jëmee Sénégal mais loolu mooy dëgg. ci élection yooyu Ousmane Sonko di wax tamit.